li waral daje bi nag mooy tey dañoo woote woon daje Sénégal yëpp fee ca place de l'Obélisque pour mooli Sénégal yëpp dem wax li leen naqari ñu mën a débbal suñu kayit état du Sénégal mu mën ñoo déglu xam fi ñun fi ñuy waxee mais yàlla dogal na comme ni ko niñ ko waxee dañoo toog ba presque 9h ñu door xam ne arrêté bi dañ ko amuñu arrêté donc ñàkk arrêté nag mënoo teree ñu fësal ñun li ñu naqari ci napp gi. lan moo li ñu naqari ci napp gi mooy ñun su ay licence daal la ñu wax ne kenn si wu ko te bato yaa ngi ci biir géej gi comme ni ma ko waxee woon wax nañ ñun tamit gis nañ ne ñàkk jën bi metti na fu metti yem te ñun am nañu xar boo xamante ne bii pancarte bi ma yor ñu bind ci transparence ñun moo Sénégal loolu la ñu laaj état du Sénégal maanaam li fi dugg mu wax ñu ko ñi mu waxal mu wax ñu ko ñi am licence mu fësal ko ñi amul licence mu a ñu ñii amuñu licence la la ca am nag la ca dugg la ca génn yëpp ñun xamuñu ci dara ñun daal transparence lañ bëgg nañu listel navire yi nga xam ne ñoo am licence Sénégal bu ñu dajeek ñoom ci géej gi ñu mën a xam ne ñii dañoo am licence Sénégal beneen bi nag mooy li fi nekk te ñu war koo wax bari na te ñun waxuñoo ñun te bu ñu demoon place de la nation halte bii ñu def aux licences des pêches bind nañ ko dañ koy def transparence dañ koy def no non d'accord d'accord ñu ci lenn loo xamante ne état Sénégal tey jël na ko ci ci pêche artisanale yan jafe-jafe di jànkonteel ci wàllu jafe-jafe ji mooy fi diigal fere mool mu dem géej boo feree sa fere du génn mareyeur boo amee tuuti jën jaay ko mareyeur bi jën wi dina seer ba mareyeur bu ko jaayee du ci génn jafe-jafe yooyu la ñu am te te at yële passé la état Sénégal def ne dafa gelé lépp luy immatriculation des pirogues gaal yi fi judd juróomi at ci ren amuñu numéro ñoo ngi dem géej am na ñoo xam ne ñu ngi si kaw amuñu licence parce que nee nañu effort bi dafa dafa doole mu mu mu dindi ko tey nag su fekkee dem nañ tey ba ñu ubbi bay indi ay bateau licence ay bateau yu bees ñun ñun ñi nga xam ne ñoo am suñu gaal locc suñu suñu gel boobu ñu defoon si immatriculation nañ ko teggi mool yi nga xam ne dañoo am gaal mën a def mën a def seen numéro yi mën dem dem géej ndax nag géej gi ak lu ñu mën di wax rek li ci yàqu bari na ñun ñoo ngi jéem a defaraat ndax ñun defaraat a ngi toll ñu am ay tëralin am ay doxalin di tere mool yi dem géej di def ay repos biologique lu nekk ñu ngi koy def pour géej gi ñoŋaat mais bu demee ba ñoŋ ñu indiwaat ay bato dugal leen ci biir géej gi dama yaakaar ne koon ñun lépp luñ doon liggéey ci at yi dafay bëgg a nax saay xam nga ministre bi coow li bari woon na ba mu woote fi organisation yëpp yi nekk Sénégal yëpp képp kuy organisation professionnelle dem nga wuy jëkk ñu jóge sa loolu mu oowaat képp kuy coordinateur 38 coordinateur ñu daje ku si ne wax nga sa problème mais ku si ne sa problème boobu gisoo mu faju mais tontu bi ñu lay indi sax du la neex wala boog bokkul ak li am ci réalité bi am ci terrain yi comme niñ ko waxee rek ñoom seen i bureau la toog peut-être dinañ am information yi seen technicien ñoo ngi leen di informer mais nag am na loo xamante ne li boo ñëwul à la base doo ko xam à 100 pour cent te problème bi ñu am ni wax naa la fu ma toll wax naa la ko gis nga pétrole bi ñu jëm ñun suñu toolu bàyyi la génne te jii ñoo ngi wax di wax ay hôpital di wax lu nekk ci fu maanaam fu fu ressource fu xaalis pétrole wala dugg ana doomu mool ana mool te waroon nañu balaa lenn di def fen wala balaa ñuy wax lenn dañ naan acteurs yi mool yi yéen a moom lii ñun lu ñu moom ñu koy jël xaaj ko delloo ko si gestion ressource defaraat suñu tefes yi defaraat suñu xeer yi gaal yi man a yem fii napp ndax pétrole bi dafa wàññi zone de pêche tey jii zone de pêche yëpp la maanaam fi jën yi doon taxaw fa la bi génn tey bu pétrole boobu ñu ko commencé yow gaal bi di nga dajeeg bato ñu ne la fii waroo fee jaar fa nga doon nappe ñu ne la de pêche ay licence yooyu ñoo ànd ba pare jëlee suñu suñu matriculation yooyu yooyu yëpp boole ko ci benn nit moom moom la géej gi antanul